Ousmane Sonko nitu gi yàlla la. billaahi wallaahi nitu gi yàlla la te dana bis bu jotee ci réew mi dana yóbbu Sénégal fu kenn xalaatut. jàpp nga ñiri ne Ousmane Sonko sax candidat du ko nekk yow jàpp nga Ousmane Sonko mën na jiite réew Sonko bu mën naa bañ nekk sax candidat mën nañ koo xeex ba yëpp am mais réew mi dana tàkk ki fi nekk jóge fi Sénégalais yi ñoo wëlbati ko jëlal ko seen bopp tegaat ko ci réew mi force mu jiite réew mi ndax moom mooy njariñul réew mi mooy njariñul sax Afrique Ousmane Sonko du président Sénégal président Afrique la képp ku der bu ñuul li muy xeex sa njariñ la. sëñ bi ñun tubaab yi ba mënuñoo wax bañ bëgg nit ñu ñuul ñi mënuñoo wax bañ dimbali leen wala ñi am jàmm ndax ndax ndax bëgguñ ko ñoom li ñuy def rek mooy takk ñu bu mu jaam di ñu not Ousmane Sonko looloo ko tax a jóg day jihaad rek mais dafa yorut ay fetale ki jaasi mais lii muy def nii jihaad la soriwut ak li mag ñi doon def waaw muy jële fi caaxaan teg fi dëkk